asalaamaaleykum bokki taalibe yi ñoo ngi fii ci kër Cheikh Abdoulaye Lahat ñoo ngi fii ci doomam ji Serigne Sidi Mbakkeem Cheikh Abdoulaye ñaan yàlla sama borom guddal fanam tamay ko wér mu jël ndigal nag ca magam ja xaritam ba soppeem ba Cheikh Sidil mi nga xam ne mooy Serigne Touba tey waaye nag doyloo Serigne Sidi lool ci boppam ak njaboot gi jël dëkk bi dénk ko kon xam ngeen ni lépp lu muy def lu mu doon diisoo na ca ak magam ju baax ji lu waral jotaay bii nag ci pàkk bu sell bi nga xam ni ku sa bët ma sa xong boo jàkkaaroo Cheikh Abdou Lahad bët ba weex na tal te dootu xong kooku mooy Cheikh Abdou Lahad yàlla nañu ko Sëriñ Tuubaa fayal bisam bi bisub jàmbaar jooju kenn du ko fàtte yokkum jumaa ji Cheikh Abdou Lahad bibliothèque bi Cheikh Abdou Lahad wataroute bi Cheikh Abdou Lahad daare kaamil Cheikh Abdou Lahad ku dugg Touba jàkkaarloog jëf Cheikh Abdou ah baa nga gëmm boo xippee dem ci li di baax baax nag dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du ràpp du raaf du réer Cheikh Abdou Lahad dem na waaye bàyyi na fi ku baax muy Serigne Sidi yéen image bii ku ko xool tubaarkalla gis rakkam yii mu dajale leen toog ak ñoom da xam ni ñoom ñii toog suuf bàyyi ko mu toog ci kaw ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér Cheikh nag bisam ñëpp xam na ko le 28 sule bii nu nekk. di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor yi sëñ ci di bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn xam naa da ko soññee di la ko yëgal waaye kenn fàttiwul Cheikh Abdou Lahad ku déglu rajo yi déglu band yi dafa mel ne tey la Cheikh Abdou Lahad di wax ak moo tax kenn fàttiwul Cheikh Abdou Lahad jëf na ba fi bind na nu gis waaye wax na nu dégg ba léegi bandi Cheikh Abdou Lahad yi gindi taalibe yi kon nag ñu ngi ñaan Mbakke nga yàgg lool te wér yàgg koo woote ñu yàgg laa wuy si ñu yëkkati nag sunu kaddu. jox ko sëriñ Abdul Xaadir Mbakke rakkam di sëriñ jiiri mu wax ci turu sëriñ bi ak mbokk yi nun ñëpp nu ànd déglu ko. aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi yéen wëlëre yi yéen am di jàmm yi yéen xarit yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa gi toog ci sëriñ Sidi Mbakke. yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko. amiin. nuyoo bi nga xam ne nag ñu ngi ko tibbee suñ biir xol. nuyoo bu teey ak suñu ndokkeel lépp ñu ngi koy jëme ci yow. ginnaaw loolu nag damaa digal moo wax ni bis bi nga xam ne moom mooy bis bi gën rëy fi moom. muy bisub Cheikh Abdou bi ma wax ci tuuti ay kàddu ci Cheikh Abdou mu ngi koy def nag ci ndigalul kilifaam di xaritam di magam sëñ Sidi Muxtaar yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko yàlla leen ko yàlla boole te boole ko bokk yëpp léegi nag sëñ Abdou Lahad bis la bisam bi bis bu rëy la ndax ki nga xam ne mooy suñ Tuubaa di suñu yaakaar tey ëllëg moo ma moo njëkk magal bis bi yaakaar naa li may wax maa ngi koy wax yéen a ma gën a xam mm-hmm. kon nag moom mii tam moo tax mu tànn bis bi nga xam ni moom la sëñ bi doon màggal ma bis bi ñëwee jamono moom itam di ko màggal yàlla na ko yàgg def lool mu ngi ciy wow nag ñëpp wëlër yi ak bokk yi ak am di jàmm yi ak xar yëpp tey ñaan nag ñu dugg ci bis tamaara yi mu génne ci alhamdulilahi rabbil alamin te jëf ju ñu ci def nag yàlla na ko yàlla na ko ci sëriñ bi def ko ay leer yu kawe njort joxoon na ko sëriñ bi loolu la dama diggaloon ma wax ko ubbi bis bi rek xamal leen ni li nga xam moo waral bis bi ak xamal leen ni li muy màggal gi tam mu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn mu ngi ko def tam ci ndigalu kilifaam. mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu ci suñu turu kilifa sëñ Sidi bu Cheikh Abdou Lahad di leen yëgal nag bisu sëñ Abdou Lahad kenn du mooy jëmm ji nga xam ni moo yee taaliba yëpp ba ñëpp yow ba tax kenn dana lewut mu jox leenu fit ba kenn ragal tut kooku nag bisam dafa jublisi te ku ne xam ne ak bëggam mooy lëggéeyal sëñ Tuuba ak jaamu yàlla loolu la fi nekkee woon loolu la digaloon taaliba yëpp ba ñëpp nekk ci kooku nag su bisam ñëwee kon war na kenn ku nekk nga laxasaayu takku te jëm ci lu koy jagal muy benn ci wax wala ci jëf ndax sëñ Abdou Lahad taliwul dara mën na lépp waaye nag dafa waxoon ne ku lëggéey sëñ Tuubaa talibe lay fay te moom lëggéey na sëñ Tuubaa kon nag talibe war nañu koo fay ñi ngi ñaan ku fi teew suñu borom faj saajo ñi ngi ñaan sëñ si di nga yàgg fi lool yàgg njaboot gi yëpp te yàgg koo def te yàgg ci am ngërëmul sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñëpp a sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fas yéene yëkkati suñu kàddu nag ci ndigalu suñu sëriñ bi toog ci suñu kilifa mu sëñ Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad mu jëm ci fàttali ak ñaan bisu fàttali ak bisu ñaan jëm ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Cheikh Abdoul Ahad mi ñu koy defal nag dafa waxoon ni fii maa ngi fii nekk sëñ Touba laa fas yéene nekkal loolu moo ko waxoon nekkal fi sëñ Touba nag mooy nekkal fi doomi aadama yëpp ci lépp lu leen di jaañ seen àdduna ak seen alaxira nekkal fi tamit umma islam bi yëpp waaye lépp jaare ko nag ci tariqatul muridiya kon ñoom bis bi seen bisa amuñ ci xeej ak seen kii ñu koy wooteel nag képp ku musaan ñëw fi moom dana la teral teraanga joo mën a laal waaye tamit dana dundal sa ruux ci sëñ Tuubaa ak ci lislaam tamit dàggi sab xol ba boo delloo di yeesal ay di di dàggee ay xol wala di nàmm ay xol te di dundal yeneen ruux <laughs> kon képp ku fi ñëw yàlla na nga taseeg loolee ci bis bi tey la ci dolliku mooy li ma li damay baamuwaar wax ni lislaam ji la fi nekkal ndax sëñ Tuubaa ci bopp dafa waxoon ni yaa saaili an ay diinin yustafa indal ilaahi haaka diinal mustafa yow mu may laajee ban diina laa war a jàpp di ma tànnloo la ma lay joxoñ mooy diina lislaam rek ndax man ci laa nekk ni nag lu mu nekk di ca di ca woote ku ñëw mu xeerta ca kooku nawloo la safoo la kon umma islaam yi am nañ ci wàll bu dee bokk yi nag moom yàlla dañoo booleeg ñoom te ba mu ñuy boole ñoom tàgguwuñu maanaam ñiñ bokkal moom ñu bokk sëñ bi wala ñu bokk ñëpp rawatina ñi ñu bokk sëñ bi bi ñu yàllay booleeg ñoom dañoo tàgguwuñu tàgguwuñu leen tàgguwuñu tàgguwuñu dañoo boole kon nag ñoom bu lañ lañ waroon mooy di ñëpp ñu saafante ñoom yëgal leen ko xam ne seen yëfa waaye nag comme que loolu mënta am ñoom bu ñu yëgee rek ku nekk xam nga la ci sawar sawaru gar la ci dool yi nag muy taalibe yi taalibe yi nag moom borom bis bii lim daa wax rek daana wax ne yéen yéen taalibe yéen ay waa kër gi bu ngeen fi bëri woon itam kon kenn du fi jaar mhm. kon loolu nag doy na teraanga sëkk ci diggante sëriñ akub taalibe kon ñoom seen bisa ngoog fa may daa fa may tërale samay kàddu rek mooy di woo wëllëre yi ak xarit yi ak am di jàmm yi ak yaakaar naa daari kaamil ni ñu ko daa waxee ak yëpp it seen bisa kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ di Mbàkke yàlla na ko suñu borom yàggal ba yéene jëm am ci liggéeyal sëriñ bi ko di ku yaakaar sëriñ Tubaa mbooleem ko sëtoo ci maaram sëti sëriñ Modou Moustapha ba ci sëriñ Mourtala ñi ngi leen di woo soxna Fatija ba ci soxna May ak mbooleem seex sépp ak mbooleem taalibe yëpp ñi ngi leen ñi ngi leen di woo ci bisub sëriñ Abdul Ahad bi di leen yëgalit conférence bii ñu baaxoo amal bu ñu nee ginnaaw suba la màggal gi tolloog la 26 doon ñaar fukki fan ak benn di ci woo mbooleem fub daayira nekk di leen woo ci bis bi di leen xamal ne bis bi seen bis la ñoo ngi sàkku ci mbooleem daare alxuraan yi ak mbooleem kuréeli xasida yi bisub sëriñ Abdul Ahad alxuraan ak xasida ci war a jiitu ku dégg appel bi nga tàmbali sam njàng ba bis bay ñëw sëriñ bi mi ngi ñaanal képp ku teew ci bis bi say say tànki ñëw ak dellu ga lépp di de nga dajee ci ak ngërëmul sëriñ bi waaw bis bi nag conférence bi tudd nañ ko sëriñ Ibrahima Mbacke ibnu Xaadim Rasul ñu ngi koy yëgal ñëpp ñu ngi jégalu kàddu yi wasalaamaaleykum wa waaye ñu siyaare sunu sang bi toog sëriñ Sidi Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaan yàlla mu yàgg fi te wér lool ba li mu yéene liggéeyal waa juróom yépp yéene ko liggéeyal maamam tedd ja yàlla may ko wér ak fan gudd mu def ko nam ko bëgge ci bakki sëñ Tuubaa maamam ñu ngi yëkkati kàddu nag ci turu mboolem ku ñu tudde sëñ Abdoul Ahad di leen fàttali bis bi nga xam ne nun day fàttali gi nun noo waroon a jóg nun laxat yi gox yëpp ak gox-goxaat ñu dem fa fàttali leen ko ndax tur wi ñu yàlla def ñu méngoo ko mëneesu ko koo fay xanaa di ko ñaanal yàlla rek te di ko dindal mbiram ak fonk mbiram abadan moom nag kuy fàttali ci moom danga nga junj rek ci lim daan digle daan ko def moom dara boppam lépp lu mu mos wax yàlla moo ko ko taxa wax ab yenentam moo ko ko tax wax Sëriñ Tuubaa moo ko ko tax a wax ab liggéeyam moo ko ko tax wax daf daan wax ne ay alxuraan yépp de bim ci gën a dëppoo ale ak dundam te fas yéene di ci xëy di ci gont mooy li suñu borom di wax ne wa man axsanu xawlan mi man daa ila llaahi wa amila saalihan wa xaala innani min al muslimin wala tastawi al asana wala sayyi'a idfax billati hiya axsan fa isa allazi baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun amim ci la tënku woon moom la doon digle li yaatu lépp tam yaatal ko ci loolu la ko ajoon jëfam jëpp tam ci loolu la ko jëfoon nit nag sa morom doomu aadama rek waxuma la nga toone moom bu la lebalee loo mun a fay te am bisam war ngaa jéem a fay njëkk njëkk nag njëkk rek koy fay ndax suñu mi ngi wax ci suuratu Rahmaan ne fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaani rek koy fay njëkkul bis nag jàpp naa ne bokk na ca yett yii mooy ñaan ca ca borom bis ba ñaanal ko yàlla ñëw ca bis ba ziyaare ko fa yàlla teg tam tooge jataayam jëf ca jëf ju wér cee nga jum lu wóor ne feeñ nga ci bis bi loolu maa ngi koy fàttali ñëpp di ci woo ñëpp di ci soñ ñëpp seex si nga xam ne ñoom la seeni waajur joxe woon ci kër gi ñuy doomi kër yu mag yëpp kër doomi kër gu ne boo fi ñëwee fekk ko fi sëriñ bi rek moo ma sa am ci daara Touba Belel jee daara joo xam ne ña fa nekk ñëpp wenn askan la ñu sant Mbacke ak daara joo xam ne ña fa ñekk ñëpp doomi Seex yi Sëñ Tuubaa yi lañ kon ñooñu seen bis la ñu ngi leen koy soññ ngeen baal ma ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah bu ma jégloo <coughs> di siyaare di jéem a teg ci wax ji sama doomi sëriñ yi fi jiitu nga xam li ma toon a wax lépp wax nañ ko ah, li ma ciy dolli ab soññee rek lay doon. tuuti sëriñ Abdou <laughs> dafa am lu ko sëriñ Touba jagleel loolu mooy ku tudd sëriñ Abdou Lahad <laughs> tudd alxuraan ndax yeesal gi mu yeesalaatal eh, sëriñ bi ci alxuraan ñëpp teg nañ seen bët <laughs> kon bu ak màggalam ñëwee képp ku yëngu ci alxuraan ak foo ci yëngoo day mel ne yow sax màggal ñëw na ci biir loolu sëriñ bi nee na fu fi kaamil nekk mi ngi lay soññi nga taxaw ci sa kem kàttan na nga ci daa taxawee fépp foo xam si ne kuréelu xaside la foo ñu fi nekkee ci réew mi ak bitim réew nga taxaw ci na nga ci doon taxawee te xam ne loolu bisu bisu euh, Cheikh Abdou Lahad la ci biir woote googu nag mi ngi ko yaatal ba jëmee ko ci taalib yi gën a feeti bitim réew ndax ñoom ñëpp ay taalibi lañ te fii lañ jóge dem ci réew ma te liggéey rek leen fa yóbbu te fu ci ne samp nañ fa kër Serigne Touba wala ñu samp fa bu mag a mag biir daayira yooyu ak kër Serigne ya fa nekk sëriñ bi mi ngi leen di ñaan fépp foo xam ne si ne mbooloom taalibe daje nañ fa bu bis bi ñëwee ñu màggal ko fàttali fa sëriñ Abdou Lahad ci diggante ay xasida ak i berde ak euh, alxuraanul karim lépp lu ñu mën ñu def ko ca ci biir loolu nag bàyyiwul benn bàyyiwul benn réew bayul benn dëkk bayul fenn rawatin nag eh, itali moom danañ am lu mu leen ci beral loola mooy dañ ko dañ ko faa cosaanoo di ko fa lañ ko njëkk a defee ci biir loolu euh, at mu jot dana yebal koo taxawe ji jëlaat na sëriñ Moustapha uh, moom sëriñ Sidi yabalaat na ko ngir mu teewe ji foofa ànd ak taalibe màggal fa uh, màggal gi uh, kon loolu mooy li mu waxoon ne na jëm ci woote bi la jëm ci lépp ci bitim réew ci biir woote boobu it sëriñ bi yaatalaat na ko ba dellusi ko ci ci ci ci biir réew mi la ko tàmbalee ci président de la république kenn mun a woote bés bu toll nii di tudd ko ak fi mu féete ci réew mi te jiitu luñ ko ca wàcc ba ci premier ministre am wàcc ba ci ministre de l'intérieur ba ci ministre yëpp mën naa wax ne li ëpp ci ñoom ñoo ñu ci bari wëlëri sëriñ bi lañ ay taalibeem lañ am nañ loo xam ne ñoo ñoom ñoo ko seeq ak moom muy muy benn muy benn nga xam buñu déggee lii ña tax ñuy wax xam nañ ne euh, fii lañ féete ak sëñ bi ci ci xarit ak wëlëri noonee la wàcc ba ci <clears throat> assemblée nationale ba ci ba ci président bi ba ci wàcc ci député yëpp noonu la wàcc ba ci euh, président conseil économique social ba ci ba ci ba ci ñim àndal ñëpp ci euh, conseil yi noonee la ko sëriñ bi euh, yaatale ba ci parti politique yi képp koo xam si ne ci parti politique parti politique nga boo mën a nekk ak foo mën a nekk xam naa ne foofu mel nag ak njabootam rek fa nekk ay taalibe rek fa daje nekk alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del leen wax jërëjëf Sëriñ Tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ci sunu kanam sang bi nu teg way jur muy Serigne Cheikh Serigne Sidi moom Cheikh Abdoulahi Lahad li tax ñu toog fiit mooy ci kaddu Cheikh Sidi Mokhtar yàlla leen fi yàlla yàggal te wéral leen moo ne yabalaat ñu ñëw ci woote jàmbaar ji nga xam ni fàttali leen rek waaye kenn du ko fàtte ci jëfam cay waxam aw doxinam ak melokaan bi nga xam ne moom la ko yàlla melaloon te ba nag ni moom muy jógul ci tànk yooyu kon bis boobu lañ yabal ñëw fi ngir woote ko woote bi nag dafa am njëriñ yu bari yu ci nekk des na ko wax des na ko waxaat mooy jëmm ju mel noonu ak fi jamono tollu ak lim jëf jamono war na bu accepté ñu fàttali nit ñi kan mooy Cheikh Abdou Lahad ak la ca way juróom wu tedd wa waxoon loola du fi jóg bu mukk ndax li fekk yéen a ngi julli di tari Fatiha loolu du fi jóg mukk kon bis boobu lañuy woote bis bi nag làmb njariñ njëriñ yu bari mooy képp koo xam ni bëgg ngaa am ca la nga xam ni ku tedd ko waxat na ko ci moom fu bisam dëkkatee dana la jaral jóg ñëw fekk si ko fiñ koy defee muy Touba soo ko mënul nga yeble soo ko mënul nga yéene te fu ñu ko defee nga fekke ko kon bis boobu mooy ñëwati ñuy ñaan sëriñ bi nga xam moo ko jotee muy sëriñ Sidi mu ñaanal ci daraje yi borom bis bi ak bis bi yàlla def ci Sénégal jàmm defal ko mboolem taalibe yi ndax réew mi toll na foo xam ne soxla nañ jëmm ju mel ni Cheikh Abdou ñu koy fàttaliku di ko waxtaanee di wane jukkoom kon sëriñ bi sëriñ bi lii na war ko wax tey ñaan sa borom taas ñu ci barkeem nga ñaanit nawet bii nga xam ne moom lañ jublu yàlla def ci tawféex ñu fekk ko te tal am na ko mën na ko jox na ko sëñ Tuubaa kon mi seen loxo ngeen ñoo leen koy ñaan ñu ngi ñaan ñaanal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh